falamma qiila ba ñu waxee ne inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad azalla jege ci na ba agsi na qaadiman mbir mu aji dikk zaaha sori na xani bàyyi ko ci man albaati lu caaxaan muy neen xataa araftu ba ma xam ne an nii naka man lam anju du ma mucc minhu ci moom bi shay'in ci dara abadan mukk fa ajmaatu ma dongu siddaxoo ak dëggalam daa bëgg wax ni wax araftu annahu laa yun jiini illa sidq fa ajmaatu siddaxa wa asbaxati xay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaadiman di aji dikk mooy di aji ñibbisi wa kaana nekkoon na ida qadima bu ñibbisee min safarin bàyyi ko ci ab tukki badaa mu jëkkee bil masjidi ci jàkka ja fa rakkaxante mu julli fii ci moom rakkaxante yi ñaari rakka tuma jalasa toog mu door a toog lin naa suñel nit ñi falamma faxala ba mu defee daalika loolee jaa jaahoo dikkal na ko almuxallafoona ña defoon gannaaw ña ñu bàyyoon gannaaw maanaam ña bañoon a dem rek ca xare ba yaqtadiroona di dogal ngànt indi jëm ci moom wa yaxlifoona te ñiwaat la ñeel ko wakaanu nekkoon nañu bid'an di lu topp wa tamaanina ak ñett fukk rajulan ci ay waay ci ay góor fa xabil te mu nangu minhum ci ñoom xalaani yatahum seen kaw wa baayaxahum te mu jaayanteeg ñoom wastaxfara te mu sàkku njéggal lahum ñeel leen wa wakkala te mu bàyyi sarairahum seeni boot ilillaahi mu jëm ci yàlla taala xataa jiitu ba ma agsi nga xool wakaanoo bid'an jee bi tax mooy wax quelque ko wax ci wolof lëf nit nga ne fukk lëf mbaa ñaar fukk ak lëf falamma sallamtu ba ma nuyoo tabassama muuñ na tabassumal mughdabi te muuñu ku ñu meral suma xaal topp mu ne taxaala fa ji dikk am ci di dox xataa jalastu ba ma toog benn yar yi diggante yaari loxoom mooy ci kanamam rek fa xaala mu ne ma maa xallafaka analu la bàyyi gannaaw mooy lu teewoon nga ñëw ci xare bi alam tëggu ndax nekkoo woon xaddi ba taxata di jënd zaharaka sa warukaay xaala ne xultu ma ne ko yaa rasulallah indi naka man wallahi waat naa ci yàlla law jalastu doon te toogoon naa xind xëy rek fukkur lu yow min ahli dunia ci waa àdduna dara aytuma gis ni andi naka man sa axruju xalsat na maa génn min saxatihi ci meram bi xudrin ci aw lay ci ngànt laqad ontiyatu joxeef na ma jadalan ak man a lay walakin na nii waaye man wallahi waat naa ci yàlla laqad xalimtu xam naa ne la in xaddastuka su ma nettalee alyoma tey ji xadisa kasbin mbaa xadisa kasi bin waxtaanu fen tardaawo woo nga gërëme bi ci moom xan yi walisima la yuusi kan na dana jege allahu yàlla yusqituka di la merloo xàllee ci man wa in xaddastuka su ma la nettalee xaddiisa sidxin waxtaanu dëgg te juddu woo da nga mere xale yi ci man fii ci moom te xale yi fii daay maanaam ay tax babu indi naka man la arjoo danaa yaakaar fii ci moom xuq ballaahi mujj gu rafet gu bàyyi ko ci yàlla xasa tedd na wa jàllate mu màgg alxuqba mooy alxaaqibatu alxasanatu bi tawbatillahi xaleya wa rida rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa wallahi waat naa ci yàlla maakaan nekkutoon lii di ma ñeel min xubinin lenn ngant wallahi waat naa ci yàlla maa kuntu nekkuma woon xat mukk aqwaa di dëgër wala ay sara du caagéen di gën ci man xiina taxal lëftu ci waxtu waa desee gannaaw bañ a dem xan ka bàyyi la xaala mu ne fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amma haza ndaal kii moom faqad sadaqa dëggal na fa xum jógal fa xum xataa yaqdiya ba àtte allahu yàlla fii ko ci sa mbir wa saarate ba xorijaalum ay góor min bani salimata fattabaxoo ñi te ñu topp ma fa qaaloo te ñu wax lii ñel wallaahi waat nañ ci yàlla ne maa xalim naaka mës nu laa xam mukk addunabta nga bàkkaaru damban benn bàkkaar qabla hasaaj njëkk lii waxad xajasta lottu nga fi an laa takkoona ci nga bañ a nekk i'tadarta di dogal ngànt ilaa rasulillahi jëm ci yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bi maa ci li nga xamee ne i'tadara dogal na ko ngànt ilay jëm ci moom almuxallafoona ña bañoon a dem xadd kaana nekk na kaaf yaka di aji fegal la dambaka sa bakkaar bi istigfaaru rasulillahi jégaluk yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam la ko ñeel la xaala ne fa wallahi waat naa ci yàlla fa wallahi waat naa ci yàlla ma zaalu yu annibuuna nii di ma yedd xatta arattu ba ma namm an arjax ma dellu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa ukaziba te may nafsi sa bopp tuma xul toog mu wax lahum ñeel leen tuma xultu lahum hal ndax ya ndax tese naag xaasa lii max ya ànd ak man min ahadin kenn min mi day ndaw leen xaaloo waaw laq yoxoo tese moom maxaa ko ànd ak yow rajulaani waay xaalaa ñun wax nañu misluma kem li nga xam ne xulta wax nga ko waxii te waxees lahuma ñeel leen ñoom li nga xam ne xiila waxeef na ko lakka ñeel la xaala mu ne xultu ma ne leen man xuma ana koy ñoom ñaar ñooñu xaaloo ñu ne muraaratu bu nur rabihi alhamriyu wa hilaalu bu ni umayyata alwaaqifiyu xaala fa dakaroo ñu tudd li ñeel ma rajulee ni ñaari waay saalixay nii aji baax xadd shahida ñun teewe woon nañu badaran badar na ci ñoom ñaar uswatun aw royteef mooy ci ñoom xaala mu ne nag fa madaytu ma wéy xiina dakaruhuma ci wax fañ tuddee ñoom ñaar lii ñeel ma wanaha te rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an kalaamina wali sunug wax ayuha salaasat ayuha salaasa bul defee li ñuy wax ixtisaas te nga jàng ko ci alfiya moom la wa tasraa bi naa mabniyun ala dammi fi mahalli nasbin ala ixtisaas ay mutaxassisiina bi dalika duuna baqiyati naas min bay ni man ci diggante képp koo xam ne taxal la fa bañoon naa dem anhu bàyyi yonante bi te wax taxal la rek mooy bañ a dem xajitana banaa te teetnu maanaam te sorinu annaasu nit ñi aw xaala mu ne taxa yëroo soppiku nañu lanaa ñeel nu xatta tanak karat ba maanaam ba soppiku lii ñeel ma fii nafsi ci saa bopp al ardu suuf si fa maa xidit moom muy suuf sa allati sa nga xamee ne aarifu doon naa ko xam fa naa nu sax ala dalik ci loolee xam siina juróom fukk laylatan ci ay guddi fa amma saahi baaya yaari moroom ya fastakaanaa toroxlu nañu toroxlu nañu waqaxadaa te ñu jekki fii bu yooti ximaa ci seeni nekk yebb ki yaan di jooy wa ama ana daal man fukkuntu nekkoon naa ashabal qawmi di gën doon waxambaane ca nit ñi wa aj la te gën a dëgër ca ñoom nekkoon naa axarju di génn fa asham tamay teewe asalaatu wër fil aswaax ca marché ya wala yukallimu nii te du waxanteeg man ahadun kenn wa aati tamay dikkal rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa usallimu tamay nuyu alayhi ci moom wax wate fekk na moom fi majlisihi nekk na ci ab jataayam baada salaat ci gannaaw julli ga fa aqul tamay wax fii nafsi ci sama xel baa ci sama bopp hal xarraka ndax yëngal na chafatay yaari tuñam bi raddi salaami ci fay nuyoo ba am laa wala déet bu ma usal yi topp julli xariban fu jege min fu ci moom ba xariban may aj jege min fu ci moom wa usaariquhu te may sàccanteeg moom an nazara xool ba fa ita aqbaltu ndéem dëgmal naa xala salaati ci sama julli nazara mu xool ilay jëm ci man wa ita tafattu ndéem geesu naa naxwahu fu féeteeg moom araba mu dëddu an yi walis ma xata ita taala ba mu yàggee zalika loolee xale ci man min jafwatil muslimina ci bëcc ngalu machaytu dox naa xataa tasawartu ba ma ñàpp jidaara xaiti abi xataadata miirub làkkub abi xataada wax wate moom ibnu xammi doomi sama baay bu ndaw la wa ahabu naasi te moo gën a sopp ci lay jëm ci man fa sallamtu ma nuyu alayhi ci moom fa wallaay waat naa ci yàlla maa radda fayut alayhi ci man assalaamu nuyoo ba waxultu ma wax la waññal ko ya aba qataada an suuduka maa ngi lay jéptaan billaay ci yàlla xal taalamu nii ndax da nga ma xam waxi bu may sopp allah yàlla wa rasulahu akub yonanteem sallallahu alayhi wa sallam fa sakkata mu noppi fa xuttu ma dellu fa naa sett wate ma jéptaan ko fa sakkate mu noppi fa xuttu dellu fa naa sett fa xaala allahu yàlla daal wa rasulahu akub yonanteem aalamu ñoo xam dëgg-dëgg fa faadat te sotti ay rongooñ xay naa ya sama ñaari bët watawal laytu te ma dëddu xataa tasawartu ba ma ñàppaat al jidaara miir ba fa bay naa ana ba nga xamee ne man am si maa ngi dox fii suuqil madinati ci marché madina ida nabati am ci lu may ab baykat al nabati yu mooy alfallaaxu summiya bi li annahu yastambitu almaa ay yastaxriju min nabati ahli shaami ci baykat yi ñun shaam bi man bokk ci ñi nga xam ne xadima dikk nañu bi taxaan aku ñam yab di ko jaay bil madina waaye max naa mbooloo moo tax ñu fee ko mi man bokk ci ñi nga xam ne yaqulu ma ngay wax naa man ya dullu ana ku may tegtal xalaa Kaab ibni Malikin fa tafixati tàmbali annaasu nit ña yusiroona di junj la ñal ko ilee jëm ci man xataa jaani ba mu dikkal ma fa dafaxte mu jiñ ilee jëm ci man kitaaban ab leetar min maliki xasaan bu bàyyi ko ci buuru xasaan wa kuntu fekk nekkoon naa kaatiban di aji a bind di aji a jàng boole ci fa xaratuhu ma jàng ko fa isa fii am te lu may nekk na ca ama baadu fa innahu naka lay mbir moo di jot nañu ne ànd na saaxibaka naka sawaay ji naka sawaay ji muy muhammad xadd jafaak bécc ngeel na wala ngay ci xàkkati defu la allahu yàlla bi daari xawaarin ci kërug doyadi wala mabdixan bi cageen kërug sànko mooy fooy sànkoom par xaq yéegal bi naa ci nun nuwaasika nu dimbali la faxultuma wax xiina xaratuhaa ci waxtuwaa ko jàngee ne wa haadihi lii day aydan ba tey minal balaa mi ngi bokk ci balaa rek fataya mamtu ma jublu bihaa ci moom ak tànnoor fourne ba fa sajartuhaa te ma taal ko kaabu ne ma déggee ne yonante bi bàyyi ko na tëboog di ñibbisi nag léegi ma daal di jàq lool am lu ma metti lool tàmbalee xalaat nag nu may layee wax lu amut ba yonante bi duma mere duma jàppal li ma def ku ma yaakaar ne am na xalaat ba mu mën a xelal tam ma dem ci moom ndax bëgg mu xelal ma lu muy wax yonante bi xal nee ma yonante bi aksi na bu wér a wér ma di xam ci saa bopp ne wax ko dëgg yi rek moo may a mucc jàkk di jéem a layage wax lu amul moom dama yokk alkande waaye naa wax rek li am dëgg-dëgg nee nag yonante bi masaa bàyyi ko ci ab tukki day njëkk jaar ci jàkk ja julli fa ñaari rakka toog noonu nag nit ñi tàmbalee aksi ci moom mu ne góor ñi nga xam ne demuñu woon ca xare ba war nañoo ëpp juróom-ñett fukk ñu ci bari ak naafiq rekk moo leen teewoon a dem ñu daal ñëw nag fa yonent bi toog ñu koy jox seen gànt di lay ndax bëgg mu bañ leen a jàppe li ñu def te ñaanal leen njëggal yonante bi daal def noona ku wax rek mu jàppale la nga wax ci zahir sàkkul la njëggal bàyyi nag sa biir ak yàlla maanaam xam ne sa xol yàlla xam na ko moo lay fay mu ne nag ba agsi man ci saa bopp ba ma agsee daa ko nuyu mu muuñ muuñu ku mer ne ma ñëw ba toog ci kanamam mu ne ma waaw loo teewoon a ñëw ci xare bi xanaa da ngaa jëndutoon waruwaay boo war ma ne ko wallaahi yonante bi su ma toogoon fi keneen koo xam ne moom su ma layee rek ba yey ko jàmm ci njëkk jàmm ci mujj kon danaa mën a laya lay ba wax la loo xam ne dooma yedd dooma jàppal dara waaye nag dama xam ne su ma la waxee lu amut ba nga gërëm ma itam yàlla mi xam kumpa damay mere ba noppi itam la nga mere ma ndax dalay xamal ne la la ma waxan dara amu ca su ma la waxee nag li am dëgg-dëgg ak loo ma ci mën di jàppalit maa ngi yaakaar rek ne sama dëggal googee dana tax mbir mi la mu ciy mujjee di jàmm rekk ne ko waat naa ci yàlla ne amoon benn ngant bu may tee ñëw ca xare ba ni ma amee kàttan ak ni ma woomale woon musuma ca àgg benn yoon mënoon na maa ñëw bu wér-wér yonent bi daal di ah kii de moom wax nag dëggam daal ma yow nag toogal kon ba yàlla àtte sa mbir yàlla moo xam la muy wax ci yow am yenn gaa yu bokk ci banu salima topp ma ne ma nun dey mësunu laa xam benn yoon nga def lu jaaduwut nekkam yow tey rek nga njëkk a jàdd mënoo woon a lay yonante bi rek nañee laye ba mu bàyyi la rek na mu bàyyee ñee yow daal ak lu mën di am boo layoon yonante bi sàkkul li jëggal ci yàlla rek mu doy sëkk mu ne ñu jàppoog man noona di ma yedd di ma yedd bëgg dellu ci yonante bi ba mel ni sax damaa xaw a ànd ñoom ci loolu delluwaat layaat waaye gannaaw bi ma ne waaw ndax lii ma dal dal na ku mel ne man maanaam koo xam ne am ñàkk demam dug naa fiq te it war na yonante bi ne ko sama ñàkk dem dug naa fiq ndax loolu man rek la dal wala am na ñeneen ñum dal ñu ne ma am na ka yeneen yaari gaay yoo xam ne ne yow la ñu mel ku ñu wax muraaratu bnu rabiixi alxamriyu ak xilaalu bnu umayata alwaaqi fiiyu ñaar ñooñu ni nga def lañ def ma daal xam ne ñaari gaa yooyu gaa yu baax lañ yoo xam ne fekke woon nañ ba badar te ndegam li ma def moo la ñu def benn la naa jàpp ci li ma def rek bu baax a baax yonent bi daal di aaye ne yetti gaa yi nag bu kenn waxanteeg ñoom nañu leen jàmb yonent bi digle ñoom ñett ñi ñu jàmb leen kaa bu nee na nit ñi daal nuy jàmb adduna daal di xat ci man lool ba jënd suuf si nga xam ci la daan dëgg rek daa mel ne du suuf sa woon mel ni daal laa xamoon lu ne xàmmiku na te noonee kat ne nekk nañ ci lu mat juróom fukki guddi ñu jàmbunu lu nekk ci xat-xat boobee sama yaari gaa yooyu moom dañoo toog ci seen néeg di jooy rek man nag ndegam waxambaane wu dëgër laa daanaa jéem génn di julli ji ca mbooloo ma di dem ci marché yi waaye yonante bi wax tax na kenn du nangoo wàqanteeg man daanaa ñëw sax ci yonante bi di ko nuyu fekk ko ci ab jataayam gannaaw ba mu jullee ba noppi di ko nuyu waaye du ma fay daanaka di yëngal ay tuñam may nattawle ndax fay na maam fayu ma léeg sax ma julli fu ko jege di sàccanteeg moom ci ni ma koy xoole ci su ma xool ma di ko xool su ma dee xool ma bañ koo xool ma seetlu ne su ma ko xool moom dana ma di xool waaye su ma geesoo jëm ci moom rek mu daal di may dummóoyu wan ma gannaaw ba loola yàggee lool lool nag ma dem ñàpp mbirum ku ñuy wax abu xataada damaa ñàpp mbiram yéeg aw ca kaw miir ba te fekk na abu xataada moom sama doomi baay bu ndaw la te it ci ñi ma gën a déggool gën leen sopp ci la bokk mu nuyu ko waaye ba tey fayuma ma ne ko abu xataada dama lay jéem taan wax ma rek sa digganteeg yàlla xanaa moos ni ma bëgg yàlla yonante bi umpali ko mu ne pat rek ma dellu ne ko waaye ji abu xataada wax ma rek sa digg yàlla xanaa ni ma bëgg yàlla yonante bi kay umpali ko mu ne part rek ma dellu waxati mu ne ma ah loolu day yàllaa ko yonanteem ñoo xam man xawma ci dara foofee nee na samay bët gën sotti ko ay rongooñ mu daal koy wan gannaaw na xam ne moom laa kon aw ca mbiir ba ma defaat noona bi may dox nag ci mbeddi madina noonu ma dégg benn baykat boo xam ne dafa indi woon aw ñam di koy jaay foofu ci madina bokk ci baykat yooye ca Sham mu indi aw ñam di ko jaay foofu ci madina ma dégg mun naa waaw ku ma mën a wan Kaaboodu Malik ku ma koy tegtal waaye nit ñi joxañ ma ne ko kee mooy Kaaboodu Malik bu ñëw ci man jox ma ab bataaxel boo xam ne buurub Xasaan moo ma ko bind naa ma dégg naa ne sawaa ji muy Muhammad dalaa bécc ngéel dalaa mere wan la gannaaw yow nag wax dëgg yàlla wër laa nekk foo xam ne dañ la fay toroxal di la fa tey wan gannaaw ñëwal ci nun booy ñëw rek nu dal lay dimbale taax bu ne bi ma jàngee bataaxel bi ma ne ah lii day nattu yàlla bee jeexagut lii daa mel ne nattu bee yokku ma daal waaxu jël bataaxel boobee fekk fourne bay tàkk ma sànn ci bataaxel ba mu lakk mooy xelam nekkul ci bàyyi fi yonante bi dem ci li ko buur boobee di wooye alkitaaba jéem waxoon da cee delloo màndargam jigéenal ndax jàppe ko maanaam as saxiifa moo tax mu naa wa anna sa alkitaaba xalaa maana saxiifa nga xam nga dane fa tayamamtu bihaa haa di dara jigéen ak fa sajartuhaa xatta ida madat ba wéyee arbaxoona ñeent fukk minal xam si na ci juróom fukk ya wastal basa te yeex al wax yu wax yu ga ida rasulu rasulillahi am lu may ndawul yonante yàlla wi sallallahu alayhi wa sallam ya tii nii dana ma dikkal faqaal te mu ne inna rasulallahi ya'muruka na la digal an taatasila nga beru imraataka sa soxna si faqultu ma ne ko upalliquha dama koy pase am maada afalu wala lan lay def xaala mu ne ma laa déedéet ba li fi nekk i'tasilha beru ko fala taqrabannaha te bul ko jege wa arsalate mu yónnee ilaa saaxibaya te mu ci sama yaari moroom ya bi misli dalika ci kem loolee faqultu ma wax limraati ñeel sama soxna ne ko ilxaqi yéegal mooy demal bi ahliki ci sa ñoñ fa koo nii te nga nekk indaxum fa ñoom xataa yaqdiya ba àtte allahu yàlla fii haadal amri ci mbir mbir fa jaat te dikkal imraatu hilaal ibni umayata rasulallaahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat la mu ne ko yaa rasulallah inna hilaal ibna umaya cheikhun ak góor la daa ixum di aji jege sànku laatu lay salafu de di ko ñeel xaadimun ab surga faal takkaraxu ndax da nga sib ama di ko liggéeyal an ax dumaxoo xaala laa walakin waaye laa yaqrabanna ki bu mu la jege fa xaalat innahu naka moom wallahi waat naa ci yàlla maa bi si dér mi nekk ci moom mi xarakatin genn yëngatu ila shay'in jëm ci dara wallahi waat naa ci yàlla maa saal dañut yeb kii di jooy mumtu kaana diru am na min amrihi ci mbiram maa la nga xamee ne kaana am na ila yawmihi ba ci bisam bi hada bile fa xaalate wax lii ñeel ma baadu ahli lenn ci sama ñoñ lawista azanta doonte diisu woon nga rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam imraatika ci sa soxna si ndax faqad asina digal na limraati xilaal ibni umayya an tax duma xaw mu di ko lëggéeyal waxul duma leneen ma ne leen kat laa astazinu du ma diisu kat fii xaaj sama soxna si rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa maa yudri ana lu may xamal maata yaqulu lan lay wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida stazantuhu ndéem diisu naa ko fii xaaj wa ana te man waay laa shaabun ki waxambaane wala bis tuma sax bi zaalika ci loole layaal ni fukki guddi fakkam la temat la naa ñellu xam soon juróom fukk laylatan ci ay guddi min xiina muhiya ci waxtu wa tereefee xan kalaamina wali sunu wax maanaam waxanteeg nun te mu sax bañ demee ba am ñeen fukki guddi te yàlla waxul dara dara ci sunu mbir ndaw daa bàyyi ko yonante bi ñëw ne ma yonante bi nee na nga sori sa soxna si lu yàgg-yàgg bu jotee teg moom beru ko ma ne ko daa koy fase am nu may def mu ma déedéet nee na daal moom sori soxna si bul ko jegeeti ba tey ni ma yonante bi waxee ne naa sori saa soxna noonu la waxee sama yaari moroom yooyu ne leen sori leen seen soxna bu leen jaxasoo teg seeni soxna ma ne sama soxna kon bokk demal ci say mbokk nga toog foofa ba yàlla dogal ci mbir mi lam cey dogal soxna si xilaal ñëw ci bi ne ko sama jëkkër muy xilaal day màggat la moo xam ne mënta toppatoo boppam te amul ak jaam mbaam surga bu koy toppatoo ndax bu ma ko dee toppatoo rek te bañ a moom dara dara dana wàññi dara ne ko déedéet waaye lu yàgg yàgg moom bul ko jege jegeet joteeg moom ne ko waat naa ci yàlla ne mënul dara dara day jéem a man waat naa ci yàlla ne booba ba léegi tax bu nee na ñenn ci saa waa kër ne ma boo ñaanal yonent bi day mu may la sa soxna nekk yow mu may la ko ndax xilaal mee sa mbokk mee soxnaam daa dem ci yonant bi ñaan ko mu may ko mu nekk moom di ko lëggéeyal kon yow it boo ñaanoon rek mu may la loolu ma ne leen déedéet man day duma ñaan mukk yonant bi loolu man kat dama di waxambaane wu dëgër bokkuma ak xilaal moomee kon duma ñaan yonant bi naa ko may ma sa soxna di ma liggéeyal ba nangam nee ma sax ca noonee nag dañ tegaat ca fukki guddi mu ànd ak ñeent fukki yi muy juróom fukki guddi yi ci yonent bi waxee ne ba léegi bu kenn waxanteeg nun nañ ñu jàmbu ñu dem noonu nag ba mu mat juróom fukki guddi tumma sallaytu topp ma julli salaatal fajri julli fajar sabaa xamsiina suba juróom fukk laylatan ci ay guddi ala zahri baytin ci kaw ab néeg mim buyooti naaj sunuy nekk fa bay naa ana ba nga xamee ne man jaalisun aji toog laa xalal xaali ci mbir ma allati ma nga xamee ne dakara na ko allahu yàlla taxalaa kawe na naa ci nun xadd dooxat xat na xale xale ci man nafsi sama bakkan wa baaxat te xat xale ci man al ardu suuf bi ma raxubat ànd ak la mu yaatu sami atu dégg naa sawta saarixin kàddug aji xaaju aw faakuk sapp na mel ni yéeg na xalaa salxin ci kaw doju salx salx jabalun bil madina yaqulu muy wax bi ala sawtihi ci jaa kawe kàddoom yaa Kaab bun Maalikin abshir bégal fa xarartu jamarot fa xarartu saajidan mbir mooy aji sujjoot waa xaraftu jama xam ne annahoo naka lay mbir moo di xat jaa adikk na farajun mu ñëkk mu njàqare muy tegg tiis fa aazana te yëgal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam annaasa nit ña bi tawbatillahi ci jéggalu yàlla azza wa jalla xale naa ci nun xiina salla ci waxtu wam jullee salaatal fajri julli fajar te dahabati dem annaasu nit ña yu bashiru nanaa di nu bégal te te dem xibala saahiba ya ci wàllu sama yaari moroom ya mubashiroona way bégal wa rakada te sojal soññ dàq rajulun waay ilay jëm ci man farasan aw fas wa saxaa te dox saaxin aji dox min aslama ju bokk ci aslam xibal ci sama wàll wa aw faate mu sappu alal jabal ci kaw doj wa wa kaana te nekk ak sawtu kàddu ga afrax di gën a gaaw minal faras ca fas wa falamma jaa anii ba ma dikkalee allazi ka nga xamee ne sam dégg naa sawtaxoo kàddoom ga